mu mel ni kon gannaaw ba nu noppee ca charte ya jaar ci li nga xam ni mooy saxuk duguk weer wi ako génnam dañuy daldi nag dikk ci beneen bunt bu am solo bunt boobu muy al aadaar al mubiha lil fitr kon dañuy dal di dikkat ci téré bobu nga xam ni mooy alfiqhul muyassar ngante yi nga xamni ni ñoom dañuy tax ak dok manam nit ki baña wor wala bok mu woron ba ci digg ba mu mën dog kon amna ci ay xeeti ngant yoo xam ni bu fekkee dafa nekk ci nit ki wala mu dab ko yooya kon bu taxawee ca moom day di doon loo xam ni lu dagan la mu bañ a woor wala mu ngant yooyu nag ba jëkk boroom téere bi nee na mooy feebar ak magal feebar ak magal mu ne dagan na ci ki nga xam ni aji feebar la feebar boo xam ni nag yaakaar nañu mu wére ca feebar ba doon feebar boo xam ni feebar bu ñu xam la ne feebar la boo xam ni nit mën na caa wére mu ne kooko kon ca feebaram boobee bu ko mënta boole koor ndax kat bu wooree dana diis ci moom dana metti ci moom ah bu boobaa du woor day daldi dog waaye nag bu demee ba wér bés ya nga xam ni dogoon na leen da leen di fay mu ne loola ngir waxi borom bi tabaraka wa taala ayyaaman maadudaat فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر كن فمن كان منكم مريضا كيف يبر تدون كفوفو كن غانتلا كن يابل ني فيبر غانتلا بو بو خامني كومو داب دغان نتي ياو غا باني وور با كيروك فيبر باي وير waaye bàyyil xel ci ban feebar benn feebar boo xam ni dafa bokk ci feebar yi nga xam ni xam nañ ni yii feebar la yoo xam ni bu gaaree nit nit mën na caa wéree loola doon loo xamante ni nii mooy la noot ca xeeti feebar yooyee xam nga am na ca feebar yoo xam ne noonu la mel ndax ki nga xam ni moom feebaram bokkul ci xeeti feebar yooyee yaakaaruñ ci mu wéree ca gis nga imma ci feebar ba wala bokk ci moom état ba mu toll gis nga kooko attem day doon leneen lu bokk ak ki nga xam ni moom yaakaar nañu mu wér ca feebar boobee nga xam ni moo ko gaar loolu benn la ñaareel ba mooy mu doon koo xam ni boole feebar ak woor day diis ci moom bu boobaa kon moom day daldi day daldi dog bu fekkee nag ki nga xam ni moom yaakaaruñu mu wéree ca feebaram boobee wala boog ki nga xam ni dafa tële tële goo xam ni tële guy wéy la comme ki magal comme ki magal moo taxoon mu boole feebar ak magal ndax am na luñ bokk walla am na fuñ mën a ànde seetal ki feebar ki feebar feebar boo xam ni yaakaaruñu mu wére ca feebar ba mu nga tëdd ak feebaram ak ki nga xam ni moom tële na ci woor ndax ak magal ma ngoog ndax lan tële googu tële la goo xamante ni nii guy wéy la mu ne kooka de du woor day dog du woor day dog waaye nag la yajibu alayhi alqada fay du ko war kon gis nga teqantal bi manam wute gi nek ci digeunte ñaar ñooñu manam ki febar febar bo xamni yaakar nañ mu wéré ci febar ba koko luñu wax koko day dog waye nak bu koor gi jalle ba mu wér mu fay besim dogon te fay boobu lu war la ci moom alaysa kadalik ma ngoog keneen ki nag moom daa feebar feebar boo xam ni yaakaaruñ mu wér ca feebar ba wala boog mu doon koo xam ni tële naa woor tële goo xam ni guy wéy la tële mooy ñàkk mën aytum ma ngoog du loo xam ni lu tegu nag ci bànneexu bàkkanu nit ki la rek nga xam ni nit ki day ragal xiif rek daan ne man mënumaa woor damaa tëlee woor la bokkut ak boobu raaytum ki nga xam ni kon feebaram yaakaaruñ mu wér ca wala mu tële tële goo xam ni daa taq ak moom niki ki nga xam ni ku magal la kooko du wor ben ñaarel bayit du fay wala yajibu alayhi alqada manam fay ga donu ci mom lu war du obligation mu fay wa kon koku lan moy teggu ci kawam mune ne wa innama talzamuhu fidyah koku fidya moy li nga xamni moy lay teggu ci kawam kon kooka loola mooy liy tegu ci kawam te muy mu leel bés bu jot miskin kon kooka dafa bokk ci catégorie boobu nga xam ni bés bu jot day leel miskin kooku mooy kan mooy ki feebar feebar boo xam ni yaakaaruñ mu wéree ca feebar ba mu nga tëdd feebaram yaakaaruñ mu wéree ci koor gi jot na mënta woor ma ngoog ndéem feebaram ba yaakaaruñ mu wéree ci dañ naan ko kon fay waru la kon nag li ngay def mooy bés yi nga war a woor ngoog muy wéru koor gi bés bu jot da ngay leel miskin bu ko defee dañuy daal di tegandi foofu sunu baaraam ci tomb bi te muy tomb bi aju ci ngant yi te mu jëm ci bu jëkk bi te muy ki nga xam ni dafa feebar ak ki nga xam ne daa magal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته